bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala sayyidina wa maulana muhammadin al mahdi wa ala alihi wa sahbihi uh, man El Hadj Seydina Issa Laye Diop nekk membre ci cellule communication bu communauté Layène. Euh, bi nga xam ne bii suñ borom ba dogal na ma dégg xibaar bi dort euh, naa ne lu war a mën a nekk la waaye dafa mel ni dama koy bañ a gëm. donc euh, nit ñi tamit wax dëgg yàlla ñu ma doon woo de partout may may saytu xibaar bu wóor pour confirmation ba finalement ni nga xameen daal dëgg gi janloon na ak ñun. ñu nangu dogalu suñu borom ba xam ne euh, dund gu nekk dafay jeex te ku dund lu bari dese lu néew kon nag yéene woon nañ ko mu gën fee yàgg lool ànd ak wér waaye nag fekk na suñu borom ba macha allah dogal na ab dogalam te du jaas ala kulli alin kon nag moom nekk na tey koo xam ne moom Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye adduna yëpp ñoo ko ñàkk. ndax mom lañ daan wax khalifatul muslimin khalifatul mu'minin kon mooy xalifab lislaam bi ndax maamam moy ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam delu suwat ginaaw bam bayiko makka ci darbu wex ba ñëw fi ci sawu jant ci darbu ñul bi de mën a démb ca màkk mën a tey fii baayam bu tedd ba di yontu yàlla isa rawlay timit jur ko tane kon premier khalifa waye mom yàlla dafa dogal Euh, mu am mission boo xam ne bi moom lañ ko assigné woon ci woote bi bokk na ci mission bi maamam tuddoon ko lu jiitu muy gane àdduna mu ne sama cuuj ba ca bawal ba yàgg ma naan drapeau bay falot ci nekk Kumba Ngoy ba yàgg mu ne Abdoulaye ma ca Abdoulaye bu ñëwee ba tolloog buntu nekk ma siiw ah moom loolu muy lu mu xam ñu waajal ka tàggat ka mu jàng alxuraanul karim ba maîtriser ko am xam-xam lool ba sëriñu daara bi mujj bi mu mujj ci loxoom dafa mujj ne ko indi ko ba ci baayam Seyna Issa nekk kii kat lépp lu doomu soxna war a xam rek xam na ko waaye it terewul mu def service militaire service militaire boobu nag ci doomu kilifa gu toll noonu waaye ndaxte citoyen la woon moo tax. keroog bi nga xam ne bii ñu ngi koy waajal pour mu dem quartier fii ci Médina ci Jekko dañu dem ba koy bëgg a ñaanal rek ñu ne ah Abdoulaye Wade kat mu ngi ci buntu kër bi ànd ak magam Moustapha Wade ne dafa dégg ne doomu sëriñ bi day dem quartier ne mu ne ñëw pour ànd ak moom ñu booy leen ñaanal kenn ku nekk tàll sa loxo Seydina Issa Rouhou Laye waajuram bu tedd alayhi salaam daal di ñaanal waaye bi mu ko nee Abdoulaye yow lo bëgg dakana ne bàyyi dama bëgg dund ba siwol sama wote maam bi ta kon xamna likay xaar mu dem quartier nek un modèle dans le dans son comportement ba ay supérieuram apprécier ko motax bi yalla suñ borom ba dogalé Lamine Gueye invité Seydina Issa Rouhou à l'occasion départ définitif du Sénégal de Wiltor Seydina Issa dem ndar ndeketi tukki la boo ne bi bu ñuy redouté mooy nekk dernier voyage am loolu c'était en quarante neuf keroog ba mu ñëwee ndar jëli nañu sëñ Ablaye Thiaw Daxaar Bango mu ñëw nuyu baayam bi mu ñibbisee nag yàggul dara mu nekk ci wàccuwaay moom tamit war a la xasaay moom rawalaay Issa sëñ Ablaye ñëw gis baayam ci tileen sëñ Ablaye ne ko Ablaye ñun de àjjana yàkkamte nañu te yéen barke war na leen damay kersawu su ma gisee manjoon ndax dugg naa ci xilaafaam sëñ Ablaye bënn bëtam mu nekk ah dangay ngay jooy waa su ma la nee kër ngoog nag mu daal di resisiraat moo waral sëñ Seydina Issa lu jiitu muy génn àdduna test na ko ci mission bi ko maamam assigné ci wàllu siiwal muy jàng yu amoon Louga mu ne sëñ Ablaye yaa koy jàng mag ñi ko waroon ñëpp mat ko ay baay ne loolu Ablaye tuuti na ci dox mission bu tol noonu waaye Seydina ay ne leen jéem leen rek keroog bañ demee Louga mag ñi ko fekk am na ku fi des waaye dafa yéem ñi nga xam ne ñoo nekkoon Louga te njàmbur ay borom xam-xam lañu ba benn naaru Kajoor jóg daal ne kii dañ koo sol li jàngu ko moo tax ba guddi ga jeexee ñi nga xam ne dañu koo wàlli woon te dëkk ci tundawoo fu mel ni góor gi Madick Mbengue Mbawor mooy o nord de Ngumba Ngéwul nekk falaa budda bala ngay ñibbi faw nga ñëw jàngal ma fas lañ ko waralee Louga ba egsi Mbengeen Mbawor tund Mbawor yëpp indi seeni fas daal di koy yeew sëñ Ablaye jàng fa ba tubarkàlla macha allah euh, góor gi Malick Ngoone jigéen siis bu njëgeen moom tamit nekk faw nga jàngal ma bala ngay ñibbi Ndakaaru ñu dugg saxaar wàcce Cees ñëw foofu ci njëgën sëñ laay toj guddi googu tamit bi ñu egsee nag Seydina Issa Rouhou Laye laaj leen waa nu ngeen def ak seen i jàng ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin Ablaay kay naa mu nekk fala budda kay laay man Seydina Issa Rouhou Laye banta sax su ma sampoon mu jaaxal àdduna ala rawati nit kon nag seen Ablaay ngoog noonu nag la Ablaay entamé sa mission Seydina Issa bàyyam wan ka ginnaaw ma Mandione wuutu ko di deuxième xalif xëcc ka taf ka ci boppam def ka muy porte parole yor bëtam yor ay tànkam yor làmmañam mu may ka soxna ubbil ko bunt une porte dérobée ñu di ko wax baddi mu jigéen ko lool macha allah te booba ay mag a nga fi di bàyyi Seydi ak Mamran noonu la nekk pendant vingt deux ans porte parole de Seydina Mandione bu bésub Korité masaan jot sifflet lay seex di daw à droite di daw à gauche mu ngi solol soldaar yi

a 14 ans Ablaye di porte parole kon 30 ans de porte parole ay 22 ans de porte parole 52 ans de porte parole tok ci 20 ans 2001 2021 72 ans de vie spirituelle mu liguey nak liguey de bi dara wessul. ki d'armée di Cheikh Gaynde moo moom la àndaloon quartier ak Ablaye Wade mu jël doomam Cheikh Mbacke tudde ko ko waaye yemu ca sëñ Abdoulahat jël soxna suñu wax Kiné mbay daal di jël rakka ja Nogay Mbaye may ko sëriñ ablaay Thiaw mu am ca doom ju góor tudde ko sëñ Abdoulahat am ca doom ju jigéen muy maam Faati mu may ko sëñ Sidi Mbacke taawu sëñ Abdoulahat wëlbatiku sëñ Cheikh Tidiane si al mu tudde ko doom génn na àdduna mu ngi dëkkoon Pikine tali bu mag mu wëlbatiku jël Alaaji Ibbu Saaxo tudde ko doom àjjuma jot ñu daje yoof wëlbatiku jël Alaaji Mansour Gaye bi daan ñëw ci ziar général di fa def alalam mu tudde ko doom waaye jël doom ji sax ci siddit nga tudde ko këru diine yi booba yaa ngi defar moo tax mu nekk un fédérateur rassemblé yemu ca waaye bu waaraate jotee xam na ne dafa war a mission maamam te waru cee am tergiversation mooy bàyyi laay yàlla ko yónni mooy Mamadou Demba mooy Mahadu tey waaye bu duggee ci kër sëñ Touba sëñ Ba da ngay yaakaar ne murit la xam ca loo xam ne lii taalibe murit du ko xam mu di ko wax. mu wëlbatu ko dem ci El Hadj Malick dugg ci xilaas saab bi dafa amoon waykatam spécial Baye Ablaye Fall miy génn àdduna tey doon garde ndinga la moo ko doon wayal jës bul ay gàmm moo bu demee ci xaadir. ñu woyal ko nga yaakaar ni kii xaadir la noonu la sëñ Ablaye Thiaw meloon kon jox na kenn ku nekk lamu moom waaye nag ci wàllu dialogue islamo-chrétien 1992 bi pape bi ñëw fii la communauté musulmane dañu réticentoon pour teeru jëkk à l'aéroport waaye sëñ Ablaye ne man day gan dinaa ko teeru daal dem aéroport teeru ko joxanteeg pape bi loxo waaye loolu war nañ kaa mën a nangu ndax bo xolé 1946 ci wax ba moy ci port ba biñu téru Vincent Auriol président de la République de France keroog gis nañ fa gor gi Pedre Diop mi Serigne Dakar de l'époque El Hadj Seydou Nourou Tall Serigne Fallou Mbacké Serigne Babacar Sy Serigne Thiénaba ak Seydina Issa Rohou ñuy président de la République de France parce que ñu nekkoon ci joug français nekkoon donc ay français à part entière kon lolu modèle la wàllu jàngale la ndax baayam yonte yàlla Issa jël na otoom ak chauffeur abal ka madame Gaye bi nga xam ne chrétienne la woon mu doon dem ngir deux ans de suite kon loolu ba tey ci wàllu rafetal la <clears throat> sëñ Ablaye tukki fii ba euh, Côte d'Ivoire di def ay jàng bokk na sax benn guddi bu mu ak kii di euh, alaaji Ibou Sakho moom mu tëdd doom te loolu man fekk naa ko benn bi fekk gëltàppe la woon kon serigne Ablaye Thiaw yamul nak ci rafetal jëm ci kilifa yi diine yi ba tudde len dom waye en même temps mom serigne Ablaye dafa fonkon talibé ndax Abdou Diouf jox na rendez-vous à la présidence mu tombeeg tudd ben taalibe talibé xam ne bii mu ngi dëkk ci parcelle sama xarit la koku mu ngi doon liggéey ICS dëkk Mboro serigne Ablaye Thiaw bàyyi rendez-vous avec le président audience ba dem tudde doomu talibé boobu ca Mboro waaye man mi il y a 43 ans en arrière 1978 sëñ Ablaye fekk naa ko Malika boobu maa ngi dëkk Gueule Tapée yëgal ko sama tudd sëñ Ablaye jóge Malika 9 mu ngi ko fekk ci kër ga moo fa jiit tuddal ma sama doom yend fa ba Tisbaar kon kooku yëg na taalibe yëg na taalibe xeebul taalibe xeebul ab géew xam na lan mooy mission kon nag daraan bokk ñun lekk te loolu yëpp ci ko la sur 50 magal, Seigneur Ablaye dem na 48 fois sa première déclaration radio diffusée en 1980 mon cas ko fait, ci salon wu euh, qui euh, euh, Mamoun Mbacké euh, secrétaire particulier bu Seigneur Abdoul Ahad keroog Clédor Diagne moko enregistré sur bande circulaire ak Nagra mangi ngi mu def déclaration at mu jot Touba Touba di laaj at mu jot mu di def déclaration ba teg màggal ci yoon woo xam ne def ni dem euh, euh, cérémonie officielle gàmmu guddi gi kon 72 ans de vie spirituelle temps bi mu passé sous les drapeaux ak temps bi nga ne te Cambérène yembal ak Malika moy julé niwi moy mooy domi doom il était au service de la population au service de la umma kon kooku tay li nga xamné li defat naka moy le 19 euh, le 19 mai 1990 dañu daan dem Kañabon pendant dix ans et plus ben at nak en 90 ñu tay dañu dem Ziguinchor fa lañu ñu jangay moom nag sawaraloon ci jàng maa ngi fàttaliku ki yoroon organisation bi fanaan nañu ay jàng jaar Malika di tàggoog moom ci fajar gi bi ñuy tàllal sol ñu loxo mu ñu ñaanal ñu ngi ko naan sotraag de kaar yëpp pare nañu mu nekk sotraagi te boobu pour dem kaña boo la woon ka ka waaye finalement ñu moo nekk li naan il avait il était dos au mur ndax nit jóge na Ziguinchor par avion. ñëw rassuré dalal xel nit ci momit dum dum du arrière mu ne ginnaaw nag yéen dem. allah rawati man mi nga xam man la sama maam waxoon ci lono tax mu dem mu def l'objet d'attaque le 19 mai 1990 il y a eu 150 blessés mais dans ci dans la dans la course la dal ci chaise yi gaañu ñu jël len avion militaire répartir l'air entre hôpital principal Dantec ak CTO mom mu jaar par la route ma am privilège bu toll mu changé auto dugg ci sama auto ba jéggi ba soog jël auto kon seigne Ablaye fofu bi mu ñëwé dafa sans rancune il est pas vindicatif la tax mu jéggale nak ndax mamam ya rasoulallah mam lay dañu ka jiñ ko sosal ko ba tax ñu ko pendant trois mois finalement le juge Gilbert Devalon a di une ordonnance de non-lieu ñu libéré ko ko mu ne mu ne mu ne ñi may tuumaaloon tooñoon ma baal naa leen kon seigne Ablaye ci warna naa mën a baale waaye bi suñu diggante ak Mauritanie tangé ba metti nga xamné ne y avait des tueries de part et d'autre ñu rendi nit ñi seigne Ablaye mo jëkk def une sortie radio télévisée ci RTS à l'époque kon ki modèle la à tout genre roy kay la à tout genre ak mbax kessé la c'est la générosité par excellence ay am ñu ay jang dañuy sétane sëñ Ablaye ndax ba très élégant ak taille. bi a sañ sa lool ci yére yi waaye la ko daan leme di ko may imam yi di de village yi di ko may yenn notable plus d'un million jox na fayal ko ci ay avenue mbaxana yi ñu ngi ko daan fóoti ci aw say foofu ci El Mansour montre yi pile yi ñu ngi ko daan changé ci Arzuni avenue Lamine géey kon moom ku bëgg a sañse la ndax dafa doon na ci bàyyam yonti yàlla Issa Rouhou Laye waaye ku bari woon xam-xam la ku yaatu la waaye ku woyof la du jànni kenn du toroxal kenn kook na kon tey bu génnee àdduna adduna gépp la génnal àdduna te nit ñi war nañ kaa delloo njukkal waaye jullit ñi war nañoo tiit nitu yàlla ko tol noon bu génnee àdduna ñun ñëpp war na nañoo tiit tax xam na nag yàgg-yàgg nii rek dund ak dee nag bay laay maamam dane al mawtu laa yaati ilaa baxtatan nee na dee du ñëw ndare ci mbetteel moo tax mu bette ñëpp waaye nag xamoon na ne faw àla kuliyaan day ñëw kon ñu ñaan suñ borom bi subhaanahu wa mu teeroo ko ak yërmandeem ak i xéewalam teral ko waaye macha allah Euh, yalla seral ginnaawam ba ma sha allah njabot gi ñepp teggu ci siraatal mustaxim ndax bi mu toogee xalifa le 24 avril 2001 ñaari weer lañ ci tek le 24 juin 2001 ca Géejawaay mu ne wax jeex na jëfa dess waaw kon ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sante 20 ans de silence wax dëgg yàlla ñu ko loolu yaayam maam ngaan jóg sëtub Lat Joor la mhm. waaw kon wàllu meenam mhm. bawal la moo tax mu doon wax sama cuuj ba ca bawal ndax Kumba Gooy moo jur maam ngaan maam ngaan moomu ak ak maam yoro ñooñu moo tax maam ngaan moo jur sëñ Ablaye Thiaw am na li waaw mooy li ma wax léegi wax naa la ne la euh, dafa jël soxna su tudd Nogay Mbay rak euh, astafurlaa moom Serigne dafa jël Kiné Mbay rakk ji tudd Nogay Mbay mu may ki Serigne Abdoul mu am ca doom ju góor tudde ko sëñ Abdou am ca doom ju jigéen tudde ko maam Faati may ko sëñ Sidi Mbàkke taawu sëñ Abdou Lahad muy soxnaam waaye tamit de manière régulière da daan ñëw màggal dal sama kër boobu maa nga Mbàkke nekkoon chef d'agence à la BAO de Mbàkke actuel CBAO mu daan dal sama kër bu ko defee am na dal goo xam ne gi dafa yendu ñetti bëccëg ak ñaari guddi maak moom ñuy añandoo di reerandoo waaye bu premier ministre Habib Thiam di sëñ Moustapha Bassirou mi yoroon màggal gi di magu sëñ Mountakha tey man lay woone ma indi sëriñ mi tax gouvernement baa ngi ñëw waaye xarit tabaski yi daan ñëw fii tamit yoof man mi la ko sëñ Blad daan jox ma di ko indi. amoon waaw parce que relation bi mooy Abdoulaye Wade ba sëñ Abdoulaye Thiaw waree dem quartier dañ dem ba koy bëgg a ñu ne ah Abdoulaye Wade daa ngi ci buntu kër bi mu ngi ànd ak Moustapha Wade magam benn oto moo doon yóbbu sëñ Abdoulaye keroog dañoo mobiliser ñaari oto yi Landou ak Plymouth sëñ Ablaye ñaanal leen Ablaye Wade moom bañ ko laajee loo bëgg dana xanaa dund ba dem tugal ba mel ni tubaab dem na tugal am na soxna tubaab kii nag damaa bëgg dund ba siiwal sama woote maam bi def na ko macha allah dëgg loolu mooy relation waaye wax na ma ci làmmañ ne ma biñ ma affecté ma jóge xaar bàng ñëw Kaolack Ablaye Wade dafa ñaan affectation ñu fekk sama Kaolack ay xarit lañu woon parce que c'est des frères d'armes am na photo boo xam ne bi moom ak sëñ Cheikh Gaynde Fatma ak Ablaye Wade ñoo ko ànd ak seen kalo yooyu euh, dafa am lu mu lëkkaloo ak waa kër Seydina Limaamu Laay alayhi salaam ndax d'abord Baye Laay moo randal géej gi te ba mu koy randal am na ay seede man toog naag mag mu ko fekk mu nettali keroog bi Baye Laay génne jàkki suba baayam Alsaan Wade te ci loxo moom mu ngi tudd Libaas Wade

te boo demee nii mu ngi def ravage au niveau de Kayar mu ngi def ravage goxu Mbàcc ak Guet Ndar waaw boo demee ci géej gi nga xam ne élément yi agressif mooy géej gu jigéen gi yaraax mbaaw caaroy tëngéej barñi ba boori mbuur géej gaa ngi yàq rek waaw lu tax taax mi moom nekk ci taatu géej gi te géej gi laalu ko loolu benn la sëy naa yi saa génn àdduna géej gi neex borom portale ma ñoon génn àdduna géej gi neex Seynaa Babacar génn àdduna ma woy teer ba ci teenu jàmbalaay bi moom la ñu dawaloo ko rek ci dëj ba Baye Seydi Thiaw kazalika Maam Raan kazalika kon moom bu fekkee dafa génn àdduna géej gi am benn comportement bi te ñun xam nañu par observation jouru Korité nu géej gi comporté woo kon géej gi biñ kalaat denc wax nañ ma comportement géej gi na mu dale ak na mu fuure di weex yaa ngi dégg kon bu gënee reculer dafa mandarga wu waat rek moom tamit kenn na mu ko defee ci baayam mi ak ci maamam mi ndax bi bàyyi laay génnee àdduna géej gi neex trois jours la durant ñuy xaar yonte yàlla Isaa walaay pour mu ñëw julee ko mu ngi neex diggante nga ngapparu ab dëkkam ba ci fii ñu ko denc ci jàmmalaay ñetti fan ñu ne géej gi di jooy rangooñ yu tee yu neex ku sëgg naan ku sigg waaru géex mu ngi noonu